يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم tey lii moom lu ñu bett la ñun ñëpp xam nga ndog ndog la nag parce que tamit ku ci nekk war nga ci bàyyi xel parce que tamit moom dee moom dañuy wax ni ci mbetteel la ñëw te tamit ku ne rek na nga waajal sa bopp muy ci man laa koy sama bopp laa koy njëkkee ah. parce que Gaston euh, demam bi bett na ëxlu làmb bett na milieu sportif yëpp parce que tamit bon am na benn partition bu mu joué ci làmb ba nga xam ne tey damay wax ni bu doon bu làmb doon garab damay wax ni branche bu am importance moo ci moo ci moo ci fax te yow li may wax ni yaa gën a xam parce que Gaston bëri na tey mbër boo xam ne tey euh, tu es devenu quelqu'un dans ce pays moom moom moom moom gunge la parce que nekkul woon rek promoteur dafa nekkoon liggéeyam la woon waaye nag ku yéene ku yéene ku yéene woon mbër la ah parce que bëri na ay mbër yoo xam ne bi ñuy am bi Gaston di fexe pour ñu am kër mhm. boobu tolloowuñu tolluñu ci kase fu ñu amee kër te loolu ñàkk kiñaan ak bëgg mbër mhm. bëgg mbër am dara mhm. moo tax mu ko doon def Gaston gu génn ay mbër mhm. ñu teel a am kër te ba am kër boobu amuñu cachet boobu amuñu lu maanaam boobu tolluwuñu fu ñu amee lu leen lu tax ñu am kër te fexe na ci mbaaxam ak ci bëgg mbër ak ci bëgg képp koo xam ne yaa ngi dégg ay coono ci làmb tey bëgg tey ëllëg ñu ne lii kat yaa ko moom loolu nag ñàkk ki ñaan rek la parce que tamit nit des fois mu nekk ci mbir en toute sincérité te tamit na muy jëflanteel am sax yenn bët yu ñuy xoolee te Gaston nag yàlla dafa defoon nag wax dëgg yàlla li may wax ne yaa ma ko gën a xam dëgg la bari na ay mbër yu mu tette mhm. bari na ay mbër yu mu jàppale mhm. bari na ay mbër yu mu taxaw mhm. ba tey ñun dégg alhamdulilah kon ba duñ def dara lu dul jaale ko yéen surtout la presse xam nga ëxlu làmb la presse Gaston ku ne mën nga ko jaale sa bopp ba pare li ma gënoon neex ci moom mooy nit ku bëgg ku mënoon nitam la Gaston nitam kenn ko laal te loolu nag ay jikko yoo xam ne tey dafa commencé raaf parfois da ngay ne nit ki sa nit la tey jamono dab la mu nekk ci ay jafe-jafe wala mu nekk ci tumuranke nga taxaw fële Gaston mën naa la waatal ci Alxuraan ko nitam kenn du ko laal te loolu am na ñu fi mu nekk ñu ko mën a seede te loolu nag ci qualité doomu aadama la. kon boo dañ koy ñaanal yàlla fële mu jëm yàlla bu mu fa am benn tiitaange. njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na yàlla teg loxoom ci njaboot gi. parce que doomu aadama boo gis bu dëddoo tiitaange tiitaange bi muy am ci premier ci ci première ci waxtu ci biir bàmmeel mooy njabootam njabootam rek lay inquiété parce que tey bari na ñoo xam ne tey dañu dëddu seen njaboot tas wala seen njaboot réero wala mu jaxasoo kon nag njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxom ba nga xam ne seytaane du am ci ñoom yoon soxna si fi mu fi bàyyi yàlla na yàlla may xolu muñ parce que Gaston mënuñoo wax ci moom bu ñu doon wax ci moom fii ba suba dafay yàgg lool. au-delà waaw nga xam ne créé na ko ban combat la gën a neex ci Gaston presque sama sama sama les combats mais combats les les plus choquants moo ko tëgg. combats yi nga xam ne moom ma génnee tey moo tax tey parce que tey mbër boo gis ci àddina. am na ay combat yoo xam ne moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko lancé moo ko def li mu doon tey ay combat yoo xam ne combat Gris Bordeaux Antoine Bakhoum Gaston Gaston ba may fay ba may fay un million huit cent boobu am Antoine Bakhoum moo mu gënoon xew moo mu gënoon siiw huit cent mille la fay Antoine Bakhoum te Gaston kenn mësul xam ni équipe de la faral c'est un professionnel ci li muy def Gaston c'est un membre de l'équipe de jeunesse am Fass la ko mais Fass la dëkkoon. mais mënuloo ko mënuloo ko xam. parce que c'est un professionnel ci li def. bu liggéey bu leen liggéey séqee bu leen liggéey boole liggéey ngeen yem. mais Fass la membre Fass la woon. mais munoo ko xam yow mënoo kenn mënu ko xam. parce que c'est un professionnel ci li muy def. kon nag yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla yërëm. lépp loo xam ne njuumte la woon fii ci àddina. yàlla na ci yàlla dëgg tànkam ci barke alxuraan. kan ngeen mujjee gisante. gas. j'ai tout fait la dernière fois bi may voyagé dem Paris def na ay coona parce que Gaston fu mu mës a voyagé même même avant muy feebar fu mu mës a nekk ci France bu ma yëgee ni muy France dana daj ay coono ba gisante moom. parce que mayoon na ma ci boppam ci loo xam ne mbër gaawul mbër di ko ci moom. parce que dama ko yeboon trop. amoon ak moom relation humaine. au delà ci làmb. on part dañ doon waxtaan dañ doon boo ñu fekkoon ñuy wax. da nga la yebee Gaston. ndax loolu moo ma ko mayoon ci boppam. kon nag kii di doomam muy makan te mu te te mu te mu commencé def te commencé def partition ci liggéey bi yàlla na ko yàlla dëgëral bro waay ñu ngi jaar ñu ngi jaar ñu ngi jaar ñu ngi yàlla na ko makan mi nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi ci kanam di doxal yàlla na ko yàlla may kattan ak doole seytaane bañ a mën ci moom dara parce que nag wax dëgg yàlla te teg na ko teg na ko ci yoon te mi ngi commencé doxal te wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ci moom kon yàlla na ko yàlla may kattan may ko xel bu mu doxalee di leen ko jaale yéen ñëpp ah. wax ji dafa diis nag te li duuf nag yëpp xamul ci cin li waaw bu ñu mënoon wax lu ëpp lii dañ koy wax parce suñu papa la te bu ñu demee ba ci kanam mm-hmm. danañu xam ni làmb ñàkk na waaw yéen ngi ziar yéen jaay comme ni ngeen ko waxee kooku boo nekkoon euh, Gris Bordeaux euh, dégg lu mu wax nee na euh, Gaston moo ko njëkkal a dëggal combat te bi mu koy fay un million huit cent la ko fay naam adversaire bi nga xamante ni moom la doon euh, bëreel moom moo ko gënoon siw mu fay ko 800000. ba tey di wax ci euh, li nga xamante ni moom mooy digganteem ak euh, ki nga xamante moom mooy Père Gaston mi dëddu naam dégg nga li mu wax euh, nee na Père Gaston membre la woon ñi nga xamante ni moo nekkoon biir Fass te kenn xamu ko ndax professionnel am ak li nga xamante ni noonu la daan tëggee làmb yi moo tax tey rek gis nga giri mi ngi noonu ndeysaan am tiis ak nakar naam sax nee na amoon yu bari yi nga xamante ni nii bëggoon na ko wax génne ko mais comme ni mu ko expliqué rek ne affaire bi fu mu toll la bi mu ko yëgee moom moo tax ba mu cee wax peut-être après bu ñu demee également dinañ mën a wax ak moom ah, ci li nga xamante ni day gën a yaatu naam comme ni mu ko waxee rek mu nekk ki nga xamante ni moom mooy Gris mi ngi ki nga xamante ne nii moom mooy ci ah, cimetière yi nga xamante ni moom mooy ah, Yoff yi donc également di xaar corps bi pour mu ñëw pour nga xamante ne nii moom mooy loolu. يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم